mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci ndigalu sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides. ak ci ndigalu sëriñ Abbas Mbacké xalifa généralu Daaru Muxti. ak ci ndigalul sëriñ dara Mbacké moom sëriñ Daam Fatim Mbacké moom maam Cerno Ibrahima daamal Daaru Muxti ah lu rëy na lan moo xew màggalu Cheikh Ibrahima Fatim daamal Daaru Muxti ana ñan ñoo koy wootee waa fédération Xidmatul Xaddim waa kër sëriñ dara Mbacké moom sëriñ Daam Fatim. muy ñu nekk ci réew mi ak biti réew. ñoo leen di yëgal màggalug borom daaru bi muy màggalug bis bi nga xam ni Serigne Touba Xaadimu Rasuul daje woon na kook maam Thierno Birahim Mbacke gannaaw ba mu jugee ca tukkeem bu yàgg ba. ki ma naan yar nga njabootam sàmm leen ba Bamba delti sànku leen moo leen murit di séere leen maam Thierno Fatiya di gor ba ñu woowee Serigne ba Ndar Bamba la yónni woon fa Ndar soo fi tax nga dem ba Ndar billaahi maam Thierno di gor. ren nag ñu jàpp ko ñaar fukki fan benn ci weeru avril bi ñu ne yemoog bisub dimanche ca Daaru Muxti xidmatul xadim di ci woo mbokku julit yëpp ak mbokku taalibe yi nañu taxaw an mu jot ànd seeg seen wasila sëriñ Aydara Mbàkke ren ñu bëgg a yokk dayo bi gis si lu kawe seen njort ndaxte borom bés bee ni toll di maam na Ibra Faati Mbàkke fépp fu daayira sëriñ Aydara Mbàkke nekk rek màggal gi war naa doon sa yitte kon ñu siy woo ñëpp ci réew mi ak bitim réew bépp tarixa ñi ngi lay woo ci bésub maam Thierno bi programme ba nag nii lay tëddee bu ñu xëyee suba danañ fa amal jàngum alquranul karim ak xasiday see ahmadou bamba xaadim rasul yi ah ku ne xam na nag fédération xidmatul xadim fi ñu toll ci sëriñ Aydara Mbàkke moo tax bu 10 heures jotee nag danañ amal restauration bu mag boo xamee ni amul xejje amul seen fas yéene berneel gan yi ci màggal gi muy ndékki ya buñ ca nag incha allah ziar bi tàmbali ziar bi nag mboolem fédération xidmatul xadim danañ àndandoo ziar ay dara Mbacke moom Serigne Dame Fatima moom maam Thierno Ibrahim waaye seexul murabbi yi kenn demul ñu des danañ ànd ak seen mbooloo ñëw ziar bi rawatina nag kuréel yi nga xamee ni daa nekk ci gox yi fasantikoo yi ci dëkk bi ñu ànd ñu fas yéenee ñëw ziar Serigne Aydara Mbacke moom Serigne Dame Fatima moom maam Thierno Ibrahim rawatina kuréel yi nga xamee ni daa nekk ci gox yi fasantikoo yi ci dëkk bi ci àdduna bi ñoom ñëpp bu neexee yàlla danañ amal ziar ci Serigne Aydara Mbacke moom Serigne Dame Fatima ginnaaw loolu nag danañ amul julli tisbaar gi bu nu jullee ba noppi nag sëriñ ay dara dana ànd ak mbooleem ñoo xamee ne ay xarit lañ wala yu wëllëri wala ay taalibe ñu àndanoon ak ziyaar jàmbaar ji nga xamee ni moo fi nekkal Cheikh Ibrahima Faty Ndamal Daaru Muxti kooku mooy kenn sëriñ Abbas Mbacke moom maam Thierno Ibrahima def laataa sëriñ Abbas nekk xalifa la ka daan ziyaara bi mu toogee nekk borom Daaru Muxti gën koo dooleel gën koo kàttanal fas yéenee ànd mbooloo mi ñu dem ziyaar ki nga xam ni mooy sëriñ Abbas Mbacke ñaan yàlla na fi yàgg loolu te wér buñ ci jógee nag guddi gi danañ amal nag jàngoo xasaayit bu neexee yàlla zikrullahi dana fa am waaye waxtaanee dundug maam Thierno ak diggam ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dana ca am waaye màggal gi jeexut bu ñu xëyee ci suba ga nag danañ ànd ak yëpp dem fi nga xamee ne mooy béyti ziyaare ji ki nga mooy Serigne Ahmadou Dame Faty Mbacké moom maam Thierno Birahim daamal Daaru Muxti waaye jaaraale ci barabu jàmbaar ji maam Thierno Birahim daamal Daaru Muxti ah bis ngoog ñu ngi ciy woo jullit yëpp ak taalib yëpp fas yéene doon koo xamee ne xarit nga wóolëre nga taalibi nga ñu ngi lewoo ci bis bi di ñaan ku ci teew yàlla nga yokk ba faw ci barkeb Cheikh Ibrahima Faty Ndamal Daaru Muxti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu